ñun délégué yi nga xam ne sii ñoo leen fi doon indi ànd ak liggéeykat yi euh, fi nu mujjee sax moom mooy léegi chinois yi ñoom dañ ni dañuy arrêté sax contrat wu délégué yi d'ailleurs arrêté nañ ko ba pare di leen xamal ni fi mu toll nii ñi ngi def seen pexe bu nekk mi ngi ñi ngi def seen pexe bu nekk pour dàq lu ëpp mille liggéeykat mille et quelques liggéeykat. bërki démb matul trois jours ànd nañ ak ñoom invité ñu diine ñoom chinois yi. directeur général adjoint ñu dem toog bi ñuy ñëw seen saagu xaalis lañ yor saag li may wax nii mën na leen jox image yeeg yëpp ñu toog seen pexe moo doon yéen délégué yi bu ngeen bëggee ku ci nekk sax sa compte am xaalis bu bëri te ngeen bàyyi ñoog liggéeykat yi ndax ñun bëggatuñ sax jël Toy Fort bëggatuñ jël dañ bëgg wut benn société rek boo xam si moom mooy dox suñu diggante ak liggéeykat yi ñun ñu débarrassé wu ci liggéeykat yi. déjà am na fi mais mais reconnaître uñ ko topp wëkk mi ngi fi mais baaxul léegi loolu nga xam si ñoom loolu lan ñu defloo ñun ñu nekk ay jeunes sénégalais ba pare tey réew mi di jooy ndax lan emploi des jeunes jeunes yi naroon a taal dëkk bi c'est parce que amuñu liggéey tey état bi toog di seetaan benn société boo xam si ay chinois lan ñëw di dàq ay délégué directement c' est parce que délégué yi nanguwuñ ñu corrompre leen c' parce que délégué yi nanguwuñ ñu bàyyi leen ak liggéeykat yi ñun tey bu ñu lekkoon ay millions tey tey daq délégué bi bi am fii nii moon na bañ am suñu neexoon mais tey ñun est ce que suñu yaram warul daw bu ñu lekkoon ay millions ba pare bàyyi ay plus ëpp mille personnes loolu ñaata famille la. président Macky Sall bu yaakaaree ni bu yaakaaree ni régler situation jeunes yi mooy wutal leen liggéey au lieu que mu protéger ñi am liggéey ba pare mi ngi nax boppam. tey tey tey ay junni nit ñoo war a génn tey lan pare pour daq tey ñoom chinois yi xam nga lan la ñuy wax du mujj fenn c'est parce que ñun la ñu koo wax ban sonn def leen attention lekk leen lii nous sommes en Afrique nous sommes au Sénégal seeni njiit duñ ci wax dara du mujj fenn ba léegi nii tey foofu la mujj du mujj fenn.